Noah Fadiga doomu Khalilou Fadiga am na mille chance pour titulaire ci match bi dox diggante Sénégal ak Cameroun amical bi war am fële ca laas nañ ci ñëw expliqué leen mbir mi nu mu demee ak naan la naka la salaamaaleykum amateur de foot ñu nuyu leen ku ci nekk seen tur ak seen sant xibaar tey jii. mën naa ne ci match bi doon dox diggante Sénégal ak euh, Cameroun dañ ne woon dañ koy annulé finalement nag dindi nañ ko kenn du ko annulé match bi dafay am foofee ca Lens mu ngi noonee waaye noo fa dégg li tax ñu ne dafa nar a titulaire ci match bi dox diggante Sénégal ak kooku di Cameroun mu doon une première pour lui euh, kooku di Youssouf doo doonoon titulaire indiscutable ci latéral droite bi moom dafa absenté nag blessure waaye yamaatuñu foofu keneen ki nga xam ne mooy euh, Formose Mendy moom it mën naa ni ñëwul. dafa blessé woon waaye it muy commencé entraînement yi ndànk-ndànk ci noonee nag ñaari titulaire yooyee ca latéral droite bi kenn jotu fa ñëw ci noonu am nañ yaakaar que ni Aliou Cissé nar na teg kookee di Noah Fadiga latéral droite si bu deful kookee di Abdoulaye Seck mu teg ko latéral droite wala mu def trois défenseurs ak ak ay piston peut-être bu ñu dee piston mën nañ teg Noah Fadiga wala soit ko Krépin Diatta mais man daal bu dee ci logique football moom Noah Fadiga daal lañ jàpp na ne war na mën a taxaw. ñu ngi xaar ci commentaire yi ba xam loolu ànd ngeen ci ou pas waaye dama ragal mu indi trois défenseurs tekk kookee di Moussa Diakhaté Koulibaly ak kookee di Abdoulaye Seck mu ngi noonee ñu taxaw ci euh, defence bi mu teg ñaari piston piston droite ak piston gauche te euh, Noah Fadiga sax dafay football piston am na euh, yàkkamti xaar Noah la la ñu mën a apporter ba tax nag Aliou tegal ñu ko ñu xool la la ñu mën a indil convaincre ko deux fois si je ne me trompe ba léegi tegoo ko benn yoon foofu doo mën a xam ki ngay woo lan nga koy doyee ak la la mën a apporter mu ngi noonee gars yi mën nañu xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee képp koo xam ne nii abonné goo suñu chaîne YouTube dugal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube yi ko la si seetaan foofu vidéo ba mu loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen ba beneen yoon ci leen vidéo merci à vous. Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam da ngay réfléchir xam nga doo wax avec mon bro. walaay ndeysaan. saa yi gerte la quoi ñoo far. avec mon grand Diouf. mais bëgg nañ ci waaw. Ah. mais Pamada lan nga wax. wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan kese continue macha allah xanaa après daal daal la nga koy jox Alhamdulillah الذين يعملون الصالحات ولله وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين Takbir. Allahu Akbar. Ay namangin. Yàlla yàlla def na ko ñëpp. ah dégg ngeen yàlla def ay sinwaa. ngeen mokkal alxuraan. dégg ngeen alxuraan mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax a baax. si yaatu macha allah. yàlla yàlla def ay sinwaa. def leen ay bëccëg dégg ngeen yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran